asalaamaaleykum internet yu yëgle TV dal leen ak jàmm ci xibaaru guddi gi xibaaru guddi gi dañu koy doore ak njiitu réew mi parti bi di APR tab nañ ko pour mu nekk seen candidat ci jongantey 2019 moom mi la ginnaaw ba ñu ko tabbee xam leen ni bëgg-bëgg mooy mu amal ab programme bi nga xam ni 2019 la ba 2024 moom mi le sax ñetti poñ moo ko ci gën a soxal dañ ci teewlu nettali Abdoulaye Timéra. Monsieur le président de la République du Sénégal. Son Excellence Monsieur Macky Sall. bal ba tàkk na te yëf yi taxaw nañu ñu tënk ko ci ñetti programme sectoriel ngir daal di jëmale Sénégal ci kanam ci suqaleku bu sax dàkk lu ci jëkk moo di programme bu ñu duppee zéro la mu doon ab programme bi nga xamante ne dafa ñëw rekk ngir ñoŋol ak yamale dëkku tari ak dëkku kawi yi waral acte trois de la décentralisation mu indi communalisation intégrale mu nek li nga xamante bi jëmmal ko Sénégal japp atum 2014 ba ni ngi nii mu daldi li nga mom modi PIDC Macky Sall daldi ko taxawal denk ko ngir ñu liggéey ci gouvernement bu Sénégal ci projet boobu ñu gis ne tamit dafa ñëw rek ngir jàppale dëkku kaw yi ci lépp lu nga xamante ne jumtuwaay la bu mën a ñoŋal ak mën a indi saafara si jafe-jafe yi nga xamante ne bi moom lañuy ñuy jànkonteel la ci ñaareelu pàcc bi ci wàllu programme ñu ju indi lii di zéro déchet maanaam lépp lu nga xamante bi ay mbalit la wala ak di mel ñu daal di ko mën a euh, saafaral def lëpp ba dëkku Sénégal yi nga xamante ni bii euh, ci la ñuy nekk ñu mën a nekk dëkk yu sell moo waral euh, mu daal di ànd ak programme bi di promo ville ci programme boobule mu nekk ab yéene bu bàyyeekoo ci njiitu réew mi ngir jox jëmm ak lépp lu nga xamante ne day taaral ak i rafetal dëkk yi ba daal di sos ay espace vert fu ne te tamit ñi nga xamante ne moom moo di euh, fu ñuy tuuree mbalit yi mel ni mbëbës ñu daal di ko dakkal te euh, mbalit bu fay tukkee ñu mun ko liggéeyawaat ñu koy wax recyclage. ci ñetteelu pàcc bi li nga xamante ne moom moo di euh, ville créative yi dafa ñëw rek ngir daal di jox gëdd lépp lu nga xamante ne dafa jëm ci wàllu xarala yu bees yi mu nekk lu yomb ci mim réew. ci misaal kii di njiitu réew mi gannaaw. tournée bi nga xamanteni bi defon nako ci Casamance ay bés yu weesu ay espace numérique yu ouvert fa nga xamanteni bi modi ak Sédhiou mu nek programme bi tax ba lepp lu nga xamanteni dafa jëm walu internet mu mun yomb bu baax baax Sénégal ci bopom ñu dal di ko tek ci réseau internet au débit def rewmi ab Diwan bi nga xamantene lepp lu nga xamantene dafa aju ci walu xarala ak lu ni mel mu daldi am taxaway bu muccu ayib ñu gis na rek li yëpp ak jéego yu ñu tek war na tax ba ñi nga xamantene ñom ñoy nga nguur gi ñu nopi diggante senegal ak Mauritanie teel a gën a tax li ni mel ku ko xamle mooy njiitu réewu Mauritanie di Mohamed Ould Abdel Aziz moom milee ba mu ñëwee ci investiture njiitu réew mi xamle ne li ni mel te moom mi ngi lu ni senegal di lañ doxlanteeg Mauritanie dañ ci tewlu reportage. digënté Mauritanie ak Sénégal dafa musara tax li ni mel ku ko xamné mom moy njitu rew Mauritanie di Mohamed Ould Abdelaziz mom mi la japp na ni sax njitu rew mi Macky Sall duggal na loxom ci li taxal digënté bi lé les relations entre la. Sénégal ak Mauritanie sen digënté dafa musara tax te li ni mel di fëndel moy li ma ñëw fi ci Sénégal té ñun dañu bokk histoire waye tamit dañu bokk lépp moo eh, am sa di sunu diggante ak Macky Sall nag diggante bu ratax la te moom mi sax def naay jógo yu mat sëkk ba nga li nga xam ne moom mooy sunu ñaari dëkk yi lee diggante bi gën a mën a ratax ginnaaw ba muy rafet lu ni njiitu réew mi di doxalee ki nga xam ne moom mooy njiitu réew bu Côte d'Ivoire Alassane Ouattara mi ngi rafetlu ni nga xam ne noonu la riiwam ak bu Sénégal di doxalante. Je peux vous dire qu'au cours des six dernières lu ëpp juróom benni at ñu ngi ànd lii moo tax euh, may ñëw fii di feddali sama kóllëre ci Macky Sall xam naa sénégalais yi bu baax ndax euh, dund naa senegal lu yàgg yàgg naa fi ci senegal lenn rek laa lay ñaanal yow Macky Sall yàlla may la ba projet yëpp nga xam ne moom nga naal fii ci senegal nga am ci ndam te contentement lay am bis bu ne di la gis ngay réussir ci say projet. beaucoup, beaucoup d'admiration pour toi, Macky. njiitu réew mi Macky Sall parti bi di alliance pour la république investir ko ci week-end bi ñu génn li nekk occasion ci ñeenti njiitu réew ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon ñu feddali lii di seen kóllëre waaye tamit seen njàppale ak ñaanal njiitu réew mi mu amaat mandat ca 2019. ki nga xam ni moom moo jiite parti bi di ICS di Abdoulaye Balde fi mu ne fekk ji na njiitu réew mi Macky Sall li ni mel lu tax mu def ko rek xam la ne ni dafa amul yaakaar ngir doon président. ci atum 2019 nañ ci teewlu nettali bintalum Abdoulaye Baldé takk na fitam dem ànd ak président Macky Sall ci teeyaayu bakkanam lataamoo bàyyi mbëbët yi mu amoon ci demal boppam ci élection présidentielle taxaw ngir jàppale Macky Sall ngir mu faluwaat moom Baldé nii li waral mu def lu ni mel nag seetlu na seetluwaat ni ay moyen wam mayu ko mu demal boppam li campagne laaj yépp moom xam na ni mënu koo matale moo tax mu décidé jàppale président bi fi nekk mbir mu ni mel nag ñu bari ci askan wi rafetlu ko ndax raar na li ñu koy gis ci politicien politique doonul ab guerre ba tax ku ci nekk dafa war a am ngëm-ngëm xool li gën ci askan wi warul doon yëfi yaama neex ak yëfi fayantoo askan wi lañu ci war a jiital kon mu mel ni li Abdoulaye Baldé def politiciens yi war nañu ci jël exemple ségam moom mi nga xam ni docteur le ci wàllub yoon di inspecteur d'État di maire Ziguinchor di ancien secrétaire généralu présidence doonoon jëwriñ ci yore wàllub kaaraange réew mi ségam moo mën a def lu ni mel kon ñeneen ñi war nañu ko roy bu ñii di rafet lu taxawaayam am na ñeneen ñu ni ñoom Abdoulaye Baldé ak soxnaam dañoo dem ànd ak Macky ndax bañ a dékku poursuite judiciaire yi ñi ëpp ci ñi farul ak président di jànkonteel dañu dem ca foire bu Dakar mbirum xëy soxal ndaw ñi li ni mel moo tax ñëpp jóg di wuti ci liggéey ca foire bu fekkee ñenn ñi jafe-jafe la ñu am ngir am fa xëy am na ñi nga xam ni moom jot nañoo amub xëy waaye ñu ngi ñaan rek leen a yokk askan li ni mel dañ ci teewlu reportage Khadijatou Fall ci njàppale Mohamed Dian. foire internationale de Dakar dafa mës a nekk wutukaayu liggéey bu soxna yu jigéen yi lee. damaa ñëw fii pour ànd ak sama copine yi ñoom dañuy cessé travail après man tama ne xaama ñëw xool gars yi seen bagage yi quoi nuñ ko démarré ak yooyu noonu. wutum liggéey ci foire ba nekkul lu yomb wante soxna si moom nee na dina def kéemtulaay kàttanam ngir am loolee. Sénégal amul job quoi. am ñu job ñu ne xaar ñëw xool ci foire bi ba xam dinañ fi am tuuti job parce que dañuy gis journée temps journée 5000 wala 10 000 ñu ne xaañ ñëw tenté seen sens. su ñuy di wut ñeneen ñi ñoom am nañ ba pare. non dama doon jàng ba tey may continuer jàng bi ak liggéey bi la même chose ça va ensemble oui damay xaar ma tawee <laughs> foire bu Ndakaaru di bërëbu njënd ak njaay yi wante loolee dimbali na xale yu jigéen yi ñu fay utee liggéey ngir daan seen doole. xibaaru bitim réew yi dañ ci teewlu Xadijatu Fall. seen xibaaru bitim réew foofee ca Burundi président ba woon kii di Pierre Buyoya jot na ab mandat d'arrêt moom jàpp na ni bile mandat dare dara la lu ko lu dul ab politique ci ab communiqué bu mu génnee ci ñaareelu bés ci weeru décembre bi de jàpp na ni ba mu joxee li nga xamante ni mooy bopp nguur bi kii di Machar Nadaye ca atum 1993 balaa mu kaa jëlaat ñetti at ca gannaaw guerre civile moo fa xewoon ans après ginnaaw ba ñu fàttee bakkan ki nga xamante ne mooy président Ndeye Pierre yaa jàpp na ni ñi nga xamante ne ñooy gouvernement bi ñu bañ li nga xamante ne mooy waxtaan ki nekkoon ci bopp nguuru Burundi yi moom nee na lii de justice bi bu deful nànk dina indi li nga xamante ne mooy xuloo ci waaso bu nekk Pierre Buyoya dolli ci ni lu ni mel dafay ñàqal fayda li nga xamante ne mooy justice bi lee ginnaaw Pierre Buyoya yu ñu joxe jox nañu ko fukk ak juróomu benneelu nit yu am gëdd lool ci dëkk ba ñi nga xamante ne ñooy militaire yi ak ay nit yu bokk parti bu ñuy wax UPRONA ñi nga xamante ne ñooy formation wu opposition bi ñoom ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma ne lii du lenn dul ab manipulation bu pouvoir bi di def kii di Charles Nitiger di ku bokkoon ci bopp lii di UPRONA jàpp na ni kii di njiit Nkurunziza deful lenn dul féete ci waa UTIS ba tey moom nee na kii di Nkurunziza dafay fooye li nga xamante ne mooy waaso yile ñu dem foofee ca France ginnaaw campagne yu yeete yi ñu amaloon ci wàllu doomu jàngoro bi ñuy woowee sida at bu jot 6000 doomu aadama dinañu gis ni ñoom ñu ngi doxantoo ak doomu jàngoro bile ñi koy gën a doxantool du ñenn ñu dul borom ñaari tur yi ak ñi nga xamante ne dañoo wàll si yoon ci dëkk bile ñaari groupe yooyee ñooy ñi gën a doxantoo lii di doomu jàngoro boobee ci ab ab publication bu ab santé publique France génnee ci semaine bi ñu génn ñaar fukk benn nit ci weer bi ñu génn ñu ngi doxantoo doomu jàngoro bi lee ginnaaw diagnostic bi ñu def góor yi nga xamante ni ñooy sëy seen moroomu góor ak ñi nga xamante ne dañuy sëy ci yoon 40 pour cent lañu ci ñu si ëpp ñu ngi jóge si Afrique subsaharienne ñeneen ñi ñu ngi jóge ca France di pour cent dong ñoom ñooy doxantoo li nga xamante ne mooy doomu jàngoro bu ñuy woowee Sida foofee ca France ñu dem ñu amaloon ca foofe ca g ba ca Buenos Aires kii di président Donald Trump ak président Xi amal nañu waxtaanu jàmm ci bésub samedi benneelu fan ci weeru décembre ci atub 2018 ci wàllub jaxasoo wu koom-koom bi tëddale woon ñaari dëkk yile ay kàddu jib na fa kii di Xi Jinping ak Trump moom nee nañu jàmm rek la ñuy dox jamono ñu toll nii ca wet ga li nga xamante ne mooy njëkkantewub si wàllu koom-koom am na fa bu baax. kii di ministre chinois bi yor wàllu affaire étrangères di Wang Yi moom nee na ñaari njiitu réew yi war nañu waxtaan si wàllu wàññi li nga xamante ni mooy droit de douane. li ngeen amoon ci seen xibaaru bitim réew. xibaaru tàggat yaram yi de xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dóor rek équipe national bu Sénégal bu handball ginnaaw ci ñaareelu génnam ci championnat d'Afrique yi les sénégalais yi ñoom daan nañu tunisien yi lu toll ci ñaar fukki bi ak juróom benn ci ñaar fukki bi ak benn li nekk ñaareelu victoire bi nga xam ne am nañ ko tax ñu nekk njiit ci poule A bi nga xam ne moom la ñuy jiite gaynde yu jigéen ñi lépp bu ñu teggiwul seen tànk fi mu ne mën nañoo qualifié ci quart de finale ndax dese leen ñaari match yi nga xam ne war nañ koo jongante te muy dox ci seen diggante ak Algérie Algérie ak Côte d'Ivoire waaye ci fàttali li ni sax tax na ñu mën a am yaakaar continuer seen aventure ci Brazzaville Sénégal moom mi la nekk na ci groupe A bi nga xam ne daf koo bokk ak Cameroun mi nga xam ne moom moo organisé xew-xew bi li te Sénégal daan ko démb Tunisie Algérie ak Côte d'Ivoire gaynde yu jigéen ñi fas yéene nañoo jàng marlo kii di Algérie juróom benn fan ci weeru décembre bu fekkee am nañu ndam yi nga xam ne ñoom ñooy gaynde yu Frédéric Bouchon yi fas yéene nañoo décroché lii di seen qualification jëm ci quart de finale yi lée dañu dem ba ci coupe confédération bi lée ak ay Vital bu Congo mi nga xam ne moom moo daan ñetti bal ak benn ki nga xam ni moom mooy Raja Casablanca ci match retour bi waaye ci match aller bi Raja bu Casablanca moom moo ko dooroon ñetti bal ci dara lii sax tax ba Raja bu Casablanca jël li nga xam ne moom mooy titre champion continental bi ginnaaw bam ca toppee di daw ëpp na fukki at ak juróom xibaaru tàggat yaram yi li dañu koy jeexale ak Copa Libertadores bi nga xam ne tey confédération bu sud américaine de football ñu kin ko xam ci kombol ñoom ñi lee xam le nañu match bi nga xam ni moom moo war a dox ci diggante River Plate ak Boca Juniors di lañ ko amalee ca Madrid ca capital bu Espagne toll ak 10 000 kilomètres ca capital bu Argentine ci dimanche bi ñu jëm muy 9 décembre li ni mel lu tax ñu def ko rek ñaari club yi de dañu wujje teeg parki démb ba ñu jongante match ale bi ñu match nii loon 2-2 dafa juróon ay fitna ca dëkk ba dara demul woon dara doxuloon woon moo tax ñu fas yéene ko yóbbu ca Espagne ngir jaamaarloo ñaari équipe yi lee bañ a mën a am lii moo nekkoon xibaaru tàggat yaram yi lee ñu leen di jox dig daje suba incha allah ci yeneen édition jàngeen jëf. li ci yéenekaay yi ak Aline Badara Dieng. show bu mag ñi sant sow bu ñu foog ne ñoom laay waxal maa ngi wax ci show muy bëgg bu mat sëkk bi amoon keroog samedi bi ñu weesu ca jam ñaajo ginnaaw investiture président Macky ñeel présidentielle yu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février nañu ci dellu siwaat muy l'observateur vox populi enquête L'As Libération ba ci Les Échos enquête ne ñu tukku sa bënn saañ bëréer la woon keroog samedi ca Dakar Arena son limrière ak mbooloo gu mat sëkk ñoo fa nekkoon kenn ku ci nekk wane pas-pas bu mat sëkk gi mu am ngir fexe ba président Macky Sall amaat ñaareelu mandat ci présidentielle yu rawatina sax premier tour ba yéene kaay bi nañu am na ay njiit yu nekk ci Afrique yu fa teewoon ku ci mel ni Adama Barrow bu Gambie Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire Mohamed Ould yaramam moo tax mu dem bay xam ne ne daanaka lu ëpp ñaari million am nañu ko ci parrain Les Échos nañu jamono ji leer na naññ ni bidéew président Macky Sall mu ngi ci njiitaluk ñaari coalition moo tax yaakaar gu mat sëkk la am ñel présidentielle yu ne dina ci jalaat ndam ba tax mu tàmbale di wone programme am yéene kaay bi nañu waaye yombutu woon keroog samedi li ko waral moo di embouteillage muy tàncalooy oto yu métti moo amoon ci kaw APS bi journal kaay nañu ñenn ñoo ñee ñoo ami jafe-jafe ci kaw tali bi ñeel wàllum embouteillage bi waaye du président Macky Sall ma ko sooke ndax moom président Macky Sall yéene kaay mu ngi visé jamono ji ci programme gi mu nar a teg utali ji l'observateur ne ñu force muy doole gu mat sëkk la président Macky Sall àndal ndax waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo jël seeni doole sol ko ko la bëgg mooy dafaluwaat ndax mooy candidat gi nga xam ne bés bu ñu ko falaatee réewum Sénégal day gën a naat day gën a neex njiitu réew ya fa teewoon journal bi nañu ñoom it bëgg nañu président Macky Sall faluwaat ci atum 2019 mooy bëgg-bëgg bi ñu wone fësal nañu ko fa L'Obs nañu moo tax moom président Macky Sall mu nga gën di fësal engagement bu mat sëkk bi mu jël teg ci wone benn pàcc ci programme gi mu nar a teg 2019 ji kenn ci président ya fa teewoon keroog dem bay tagg président Macky Sall ci biir Libération nga bu am it koo xam ne ci jàmm rekk ngay dox loolee moo tax tax man Alassane Ouattara bu ko diwaan li ma la yéene moo dina nga am ñaari lu mandat rawatina sax ca premier tour ba moom président ma Sall nag nag li ñu ko wax keroog ku ñu ko wax mbégte ngay àndal loolee moo tax photo bi nekk ci xët bu njëkk journal bi moo fa toog moom président dend ak soxnaam di Mariam Faye Sall ñu xoolante fa xoolante bu sew bi kenn ku nekk may sa morom ree bu neex bi nawetug dawan bu neexul député yi am nañu ca wàll rawati nañu ànd ak moom président Macky Sall ndax keroog samedi l'observateur ak les échos nee nañu ñoom député yi dañoo woon ginnaaw assemblée nationale ak ñu dénk wàllu mbéy mi ji ca arena Dakar ngir teewe ndajek président Macky Sall Abdoulaye Bal Balde bankul loxo ba ñu ko tàllal enquête yéene moo xëy enquête ci ay mbiram indi tegal ñu moom Abdoulaye Balde li mu wax ci biir journal bi moo di warul benn yoon Karim Meïssa Wade président Macky Sall moo ko tàllal loxo ngir mu dikk ànd ak moom ñu liggéey réewum Sénégal ci la jàpp ci loxo bi ko président Macky Sall tàllal président Macky Sall daal di diri yóbbu Karim Meïssa Wade mi Abdoulaye Balde ne waru ko papam mooy maître Abdoulaye Wade feebarul na li jaaxal Omar Sarr ba mu samp ko niw laaj ci biir journal bi moo di lan moo tax fa ñàkk bakkanam te dara indiwu ko lu mbiru takkal naa la wujju jëlee ko boobu léegi daanaka góori ñaari jabar yu bëri ku dox fàggandikoo nga injecteur denc ngir bañ ku la taal yéene kaay bi nañu moom soxna sii di Aïda Mbacke mandat dépôt nañu ko samedi bii ñu weesu. ci yéenekaay yi la ñuy yëkkatee jotaay xibaar yi di leen jox dig daje fii ak suba way leen di safoo suñuy programme jàngeen jëf.